Jewels TV, and Royal Jewels. mu ngi noonu mu ngi agsi noonu donc euh, ñu ngi jëlee cortège bi fi nga xamante ne mooy Tasset Pël Tasset Pël lañ jëlee cortège bi nii di dem comme niñ ko defee troisième édition troisième audition oto siñ baa noonu moom moo nekk nii ci cortège bi gis na ci

convoi baa ngi noonu donc maam Thierno Birahim troisième édition muy cant bi nga xamante dañ koy amal fii ci Tassette voilà convoi baa ngi noonu mu ngi noonu convoi baa ngi noonu ñu koy yóbbu fi nga xamante ni mooy kër siñ Sinthiili di doomam bi nga xamante ni moo ko fi nekkal fii ci Tassette ñu koy defee at bu nekk donc jëlee convoi bi fi nga xamante ni mooy Tassette Peulh dal di ko yóbbu ci kër ga gunge ko ànd ci ak taalibe voilà Kova baa ngi noonu Kova maam Thierno Birahim andi ci ak kii di doomam di Sine Djily jële ko fii ci entrée Tassette muy Tassette Peulh di ko indi di ko yóbbu këram pour mun a assister li nga xamante ne mooy troisième édition cant bi ñu anal at bu nekk ñu ngi noonu gis nga mbokk taalibe yaa ngi nii dal di topp ci cortège bi di dem voilà mu ngi noonu cortège baa ngi noonu oto baa ngi nii oto Sine baa ngi nii. voilà convoi baa ngi nii tolloog boulangerie bi xam naa léegi ñëw ak ci taset ma taset pël ak taset presque benn la distance bi mu ngi war a toll lu tolloog kilomètre rek voilà convoi baa ngi nii di yóbbu ki nga xamante ni mooy waajuru si jili këram pour ñu mën a fekk ci li nga xamante ni mooy bés bu mu amal ziar bu mu amal at bu jot bii di troisième bi waaw ah, convoi baa ngi noonu moto yaa ngi noonu convoi bi taxaw na ñu ngi tolloo Kër Sëñ Tuuba fii ci Tassette di gàttandu ki nga xamante ne moom mooy Thierno Birahim voilà convoi baa ngi nii door a agsi fii ci Tassette ñu ngi tolloo ak marché bi war a dem fi nga xamante ne mooy Kër Sëñ Jili donc euh, maam Thierno Birahim voilà.

maam na Birahim dugg si si kër gi nga xamante ni doomam moo ko fi nekkal di si njiil Mbàkke mu ngi noonu fekk fi mbooloo mu tàkku si mbooloo mu tàkku di ko xaar pour accueillir ko fii ci kër de moom di si njiil Mbàkke maam Thierno génn mu ngi naan ñu xaar mu génn maam Thierno Ibrahim agsi na fii ci Tassette pour troisième édition bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci kër Sëñ Jili bu Tassette ñu ngi defar li nga xamante ni tokol bi pour sëñ bi mën a génn mën a dugg ci biir ñu ngi noonu ñu ngi koy defar maam Thierno ngi noonu di waaj a génn maam ngi noonu di waaj a génn fii ci kër Sëñ Jili fii ci taset ñu ngi koy jëlee fi nga xamante ni mooy Tasset Pël daal di ànd ak moom convoi ak si fii. sëñ baa ngi noonu di génn sëñ baa ngi noonu di génn sëñ baa ngi noonu di génn sëñ bi génn na pour mun a dugg ci biir mu ngi noonu Ciss baa ngi gis ngeen ko ànd ak Serigne Djily ànd ak Serigne Djily mu ngi noonu mu ngi noonu ànd ak Serigne Djily war ko dalal fi nga ci Tosset Cerno Birahim di nuyoo mu ngi nuyoo mbooloo mi troisième édition fii ci Tassette voilà waaw Thierno ngi noonu mu ngi noonu di ñaanal mbokki taalibe yi pour xam naa rek war a dugg ci biir daal di noppalu comme fa mu jóge dafa xaw a sori mu ngi noonu maam Thierno Ibrahim ànd ak doomam di sëñ Jili